internet yu DKR 221 dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci li gën a ci xibaar yi coowal Sweet Beauté pënd ma wureegul bu ñu sukkandikoo ci libération mi ñu baaxee boobu la xibaar avocat yi layil Ousmane Sonko président Pastef boobee nga xamante aji saar Sarr daf kaa tuumaal ne dafa yegg ci kawam bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar nag jàppale ne rek ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy layil Ousmane Sonko daal dina ñuy def nag benn correspondance di ab lettre boo xamante ni jébbal nañ ko doyen des ngir accompagner boobu le dossier bu ñu sukkandikoo ci maître Bamba Cissé moom mi nga xamante ne nag moo daal di xaatim boobu le lettre ginnaaw lenn ci ay confrères am di yeneen i avocat yoo xamante ne rek d'accord nañ mu daal bind boobu le lettre li sàkku ca lettre ba nag moo di ki fi nekkoon ca gendarmerie nationale di Seydina Oumar Touré mi nga xamante ni daal di nañu tekki tànkam dàq ko ci coowal Adji Sarr Ousmane Sonko moomee ñu daal koy dégluwaat ne ñuy dugal ca leetre boobee lu tolloo ko juróom benn jàpp juróom ñaari question yoo xamante ne nag ñu ngay sàkku kii di capitaine Touré mu daal di ci indi ay leeral ba tey libération di ñu xamal rek daal di nañu kenn ci ki nga xamante ne nag moom daal di nay nekk ab témoin ñu woo ko ci doon ko ci déglu mu ngay wuyoo ci turu Sidi Ahmed Mbaye Ahmed Mbaye moomee nga xamante ne nag moom moo doon yóbbu Adji Sarr ak indi jàppale ne nag nee na yóbbu na Adji Sarr fa nga xamante ne moo di ci hôpital mu dem gisante ji ak gynéco bi ginnaaw ba may xam ne nag daal ne xamante na ak maître Pape Samba Sow ginnaaw bi loolee nag jàppale ni kii di Sidi Mouhamed Mbaye mooy xam le ni daal dinay dem tasante ji ak Mamour Diallo dafa laaj ci yenn ci ay kuréel yoo xamante ne nag ñu ngay xeex ak ak yelleefu jigéen di féminine yi nga xamante ne nag ñoom ñoo wootu ci ay organisation ngir ñu daal di koy dimbale ñoo ñee lànk ndaare tëdd ca suufu daal di ne duñ ca dugal seen loxo ci boobu boobule dossier loolee nag moo waral ba Sidi Ahmed Mbaye di xamle rek daal di ne xamante na ak kii di Mamour Diallo xamante ak maître Pape Samba Sow